والطاه وهاب يا رزاق يا مالكي لفتح هب لي وسخني كني انا ضيقي اسلا عجلا بالبشي محمد حتى اقيم الدين الله كرم يسر جوعي توبا واحمني وقني اذى الورى وتجب سمسكنا كالسماء والاراضي والهواء بها مشارك ليروت مشكنا اجيب سبحان حسن دي محمد تعالى فاتن بعض سبحان ربي امين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سياري ñep di siyaare waa réew mi yëpp ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan ak ak ak fa ñu ñu seetaane alxadim yi bii nga xamante ne moo ñu daral ngir ñu waxtaane werdu wi sëñ Mamour Touré ñu ngi koy siyaare bu baax a baax ci liggéey bi nag bi muy liggéey ñu ko ci ndokkeel xam naa ne xam naa ne liggéey bi nam ko waxe woon ak moom man ci ay at la boobaak léegi ba tey soppi soppi ko gu ca jël jëlu wu ci gannaaw xam naa kon ginnaaw xaame shawaal bi ci la wedd bi jëkk ñëw ci sëñ bi ñëw te muy juróom fan ci weeru kore wi kon alxadim yi ñoom bëgg caa def waxtaan yoo xamante ne ca weddoo la jëm gën koo leeral gën koo teqantal ma ne ma ma ne kon werd nag moom boo demee ci al alomda ca fiqul werd wi werd wi werd luy dundal ci xol la werd nag dafa am ay ay xaaj dafa dafa am ay ay xaaj am na lu ñu tuddee asikurul mufrit am ne nga xamante ne mooy ngay tudd baatu tawxiid bi laa ilaha illallah sallallahu alayhi wa sallam ne woon na li gën ma ma di ko wax ak yonent yu jëkk ya moo doon laa ilaha illallah loolu nag loolu nag loolu nag Sëñ Tuubaa ne woon na ku ko ku ko bëgg a xam ab sekkereem da ngay da ngay fase adduna fase mu dog ca mu sarik loola dis ko bind ci ci ci téere yi waaye loola looy tuñante góor ñi la kon la ilaha illa ku ko sikkarte amu ci is no nañ ca baxel am na am na ay nax-nax wala tàngoor bokk am na lu ñu tuddi azikrul mujarrad te mooy zikrul qalb wal lisaan di lafsil jalal muazama allahu am na ñu koy sikkar am na sax ñu ñuy sikkar xuwa am ñu sikkar xu rek am ñoo xam ne seen sikkar ga mooy mooy zikrul istilaam mooy koo xamante ne teewlu yàlla lay sikkare ndax dañoo def wax ne day àgg ci yëngal làmmiñam day mel ne bokkaale ci ci moom moo tax day teewlu lu azamatul albari taala kooku ñu tuddee zikrul xuraba ñooñu moom seen melokaan mooy kaana huna wa dahab soo ko dee gis doo ko xam bu demee nga nga nga xam nga ne ay ana ana ana ki toogoon fii nga ne ah koo xam naa kon mooy waaja sikkar nag am na ay am na am na ay wàccuwaay bu njëkk bi mooy sikkaru jawaare kuy sikkar da ngay sikkaru jawaare mooy nga jox yàlla ak xam ci jaamu ko ci nga topp sariyan ak xaqiqa sariya ci biti xaq ci biir ci nga fuglu yàlla ci taxaw ci sunna tun jëfi su kitaab ak sunna am na lu ñu tuddee si zikrul xulub mooy mooy ci nga jooxe dëgg-dëggi jaamu yàlla ci wéetal ko dëkki wéetal ko ak ak àtte kitaab ak sunna ci li nga xam ne moom lay moom mooy wàcc ci ci yow ci ay xam-xam lépp lu ñu lu ñu ilham wala yooyu wala nga gis ko loola loola nga xool ba xam ndax sunna na na nga na ko wala alxuraan kon am na lu ñu tuddee sikru zarair mooy mooy nga dàq gis lu dul yàlla suñu waa suñu waa dana lam ara gayrahu wala arahu fi shay'in hadawana wala gis gisuma ku dul moom loolu nag wàccuwaay bu kawe la waaw waxu waxuma gis loo gis gis ci yàlla loolu mooy wusuul bañ a gis ku dul yàlla loola mooy wisaal wusool am nam lënt misaal moo leer waaye loola ab tolluwaay la dikru waxi bi raax raax mooy sàngara sàngara gur yàlla yi mooy nga boo faree dindi bi yëpp adduna alaxira ajjana sawara nga far ko ci ci ci sa xol ba noppi nag nga far loolee far la nga far mu far ba duutoo teewul ne ne loola far na kon loolu kon mooy awraat yi wér du maxuus nag moom sëriñ bi mi ngi ñëw ci moom kon bi ñuy wax alxafiif mi ngi ñëw ci moom shawaal noonee ko ku baax ka waxe te mooy boroom boroom man raama dalil nam ko waxee waaye la ko jiitu mooy sëñ Basiiru moom defoon na ci defoon na ci ak xasida waaye yee boroom dalilu man raama dalil te mooy allaama cheikh ahmad bin xasan bin abdillahi bin bin hamad addaymaani alxasani alxasani xatasala sirra nee na xafiif bi xamisa sawal la ñëw kooku nag turam bi dëgg-dëgg mooy alxisbu rafi alladi huwa min anniiraani xirsu mani wa li duxuli ljinaani azamu shafi suñ duwaa ko tudd noonu wala boo ko tudd naa mën ko mën ko mën ko joxe noonu nee na mooy xisbu bu mag ba nga xam ne noonu noonu axsaab yi noonu noonu su su fekkee amee ay ay axsaab kii ab xisbu la ko tuddee kon xisbu kon mooy kon wérd la wérd rek mooy ab dog ci ci waxeenu mag ña nee na dog la boo xam ne bu kawe boo xamante ne nee na tata la joo xam ne joo xam ne dara mënu faa jaar nee na dana aare ci sawara te nee na mooy gën ji màgg kuy ramm nit ba mu dugg àjjana wala duxul jaani a'zamu shafi'a nee na wérdu wii moo gën a mën a rammu nit ba mu dugg àjjana loolu nag yaakaar naa kon bu doon ab annonce ñu ne kat annonce bi kon leer na maanaam léegi kat wérdu wi moom ku ci mooy sa àjjana wér na danañ dem ci njëriñu wérdu yi loolu moom ñëwaguñ ci kon al alxafiif kon moom doo ngay daara yi ko tudde waaye nag tur yi mooy lii waaye tur wi nag ñetti awraad yëpp ñetti wér ñetti nu sax yëpp noonu la tudd waaye ci waaye xam nga wolof rek moom daa xoromu al wirdul maxuus rek la ñuy for mujj di wax kon am na bu gudd ak bu digg doomu ak bu gàtt bi bi digg doomu moo jëkk a ñëw shawaal xaamisa shawaal bu gudd ba ñëw ca ca gàmmu ga ba tey ca bëgg la ñaar yëpp bëgg la ca gànnaar bëgg sasin nag ama mooy mooy ama shahid naa bi karam wala ama shahidu lii bi karam nee na mooy fi mu ko yàlla joxe teraanga juróomi joo xam ne ba àjjana duuru dakk moom wala kat ci lañ ma seeree la ñoom tëdd nga joo xam ne duutul dakk loola kon ca gàmmu ga la xaatim nag wax nañ ne mi ngi wàcc ci ci sëñ bi mi ngi ñëw ci sëñ bi ca njëreem wérdul xaatim dana wax ja dana la ko jox هذا هو الورد الخاتم المأغوز من الله برسول الخاتم danaa wax sax ne ndax kon du ne kon wirdu wi kon moom mooy tëj kon awraad yëpp ci jamono ab ñu ne ma dit loolu kat ma maanaam nag mutta wax waaw waaye man da jàpp naa ne daal kon wirdu wi kon moom yi nga xam ne moo jóge ci borom bi jaar ci sala salaam ak ñëw ci jaam ñi wirdu wi mooy wi ci gën a mag wu ci gën a mat al wirdul xaatim al maxuudu min allaahi bisu xaatim ndax ndax ni nga ko ni nga ko waxee noonu sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne moo tëj yonent yi nga xam ne ginnaawam beneen yonent du ñëw kon it widd wi noonu la mel waaye ci misaal sama bàyyi nee na ma mas naa toog ci suñu bëkk Madina am ku fa ñëw ak góor gu fa ñëw tudduma tur wa nag mag ña ci aaday murid yi gi buñ la waxee dara ngay ci nga bëgg wax ja mu leeral ko doo ko sañ a laaj feek leeralul ndax mooy xam lam ci jublu fam la yem loo rek yow fa nga yem mu ne mu ne kooku ñëw daal ni sëñ bi man de dem naa ba fa ñuy takk jëng ya ma jaaxle jëng ya mooy kon ndekete góor yàlla yi lay wax jëng gi góor yàlla ya nee na ñu ne ma sos jeex na sofa fi des sof kooku ñëw di jublu ci sëñ Bakka Madina kooku xam nga mbër la dem na ba fa nga xam ne fala aqtaab yu mag ya doon takki seen jing gi tarixa ya waaye su boobu xamal ko noonu ne ko nag kat sos jeex na léegi kon kon léegi léegi kon yi fi kon léegi tëj nañ ko kon léegi loolu nag du firi ne duñ baaxe waa ju baax ay awraad yeneen yoo xam ne dina ko dimbandikoo ci dox bi waaye nag wérdu bi nga xam ne moom mooy nandal ruwam kon wérdu xaatim bii la loolu la xam naa man wérdu xaatim bi moom day sama day sama wérdu moo tax dana feeñ ci ci ci ci ci kanam kon wérdu woowu sart yi gars yi dañ ma koy laaj sart yi ma ma ne leen kët mooy sarti lislaam rek julli woor natt asaka ndax da dangay jullee ci julli salaatul jamaa julli mbooloo moo xam sa kër la moo xam jumaa ja jumaa ja amul jumaay tijaan ak xaaju rek ako salafis jumaa jumaa yàlla la wana masajida lillah jumaa yëpp ngay julli yow jumaa juñ ne doon saaga sax bu salafis ba di toog di saaga suufee lu mën doon wute gi wuti maanaam ab jullit la yow moom li nga jàpp mooy ne li li li nga gëm li gëm mooy sallallahu alayhi wa sallam la mu andi woon moom nag mën naa jàpp ne yow li li nga gëm baaxut moom waaw mën na koo wax jëmmiir lu ko waaw xam naa nag loolu nag dana jafe jafe ndax man ñu mas na may julli ca njaareem ci jàkka joo xam ne karawaa ji xutba bi métti na ci man lool nga xam ne moom su ma mënoon génn jàkka ja damay génn xam ne bu dutoon charia kon moom damay génn jàkka ja ndax kooku moom ca ca murid yi la la doon wax di wax di jëmiiru lool wax ja te kat nee na day xutba ci jumaa joo xam ne jumaay lislaam la kon ñu fay ne ay julli lañ man mi julli si xanaa bu lu ma bon bon xanaa ab julli laa kon loola loolu la kon muy lu tedd kon mooy rek nga doon ab jullit jaxasug jullit ñi loola mooy sart ba sart yi nag am na ñoon waaw ku ko mënul gudd nag ma ne la lañ ca mën nga def ko lu baax ñàkk ma man léppam du tee nga def ca la nga man yanaw la nga àttan doxee na nga mane bu àggee say wa ñëw àll ba ko ko fa dem fekk fa matt mu bari ñu ne waa matt bi de mën naa dem ci kër ga am njaay na ma ne ah déet matt gi mënees ko yóbbu ñu ne ah kay jëlal matt boo àttan yóbbu rek boo taa bu loola ta taa dakk matt mi dana dem ci ci kër ga loolu ko loolu kon muy lu am solo foofu it nag njaareem it wax nañ ne sëñ bi ca mañ moo ba sëñ sëñ bi digle woon nañ ñu ñuy def xul wallahu ahad fukki yoon ak ñaar ginnaaw julli gu nekk ku yor wedd bi na ko ci dolli ku ko jur ci tiit nag na ko doyloo waaye nag man ba tey amaguma ci nag silsila càlla la gujjoo ci sëñ Tuubaa ba ci man amaguma ko ci diggaguma mag ñi sit daa ko waxtaane waaw waaw loolu loolu moo la tax xam naa léeg sax mu fàttali ko def ko waaye nag nag daal ëmma ci silsila ëmm silsila bi mooy ëmma ci ndigal lu jóge ci kooka mu jóge ci kooka ba ci sëñ bi werdu wi boo ci jël ci ñett yooyu man moom wirdu xaatim bi laa jël sëñ Murtala jox jox na ma wirdu yëpp noonu ma koy digal noonu noonu noonu muy waxee moom sëñ Abdou Khadir jox na ma xafiif bi joxe na wu tedd 88 ñëw wax ko ko bàyyi Mbàkke wala si Mbàkke Ramata wala bokk si Mbàkke Abdourahmane laa dem dalal keroog yóbbu ma ci sëñ bi xaar ma dem ci waxtaan ak moom ne ko damaa maa ngi ànd ak sama rakk ji suñ muudu ma ne ko damaa soxla woon maa xuus waaye toog ma toog ci saal bi mu jëkk jëkk ni bërit daal di noonu noonu muy jógee ak lefam ka lefam sawar gam sawar daa daal di dugg ci néeg ba néegam génne nusqa bi kayit yi indi ko taxaw tugul de daa taxaw di ma leeral sart ya ba noppi soog a toog xam nga loola su ko nekkoon yónnee yónnee wut de waaye yitteel gu ko yëf yitteel ak it xanaa bë bëgg loola jeexital ci man yàlla na jeexital ci man loola tax mu defee ko noonu loola kon mag ñàngoog doxeen woowu waaw waaye joo xam ne yooyu booba yuru dara rek ci nga fonkee la muy wax noonu ginnaaw ba sëñ Murtala jox ma ko ginnaaw ba nag sëñ Saliou jox ma moom xaatim waxoon ca ne ne ne kat waxtu yi day bari na waaye tusbaar moomu timis moomu moom loolu la wax moom xam naa xam naa sax am na ñoo xam ne danañ taawile li ci ixna ixna daa waxoon bi bi lu xatim bi jeexee dane dafa andi waxi Sëñ Tuubaa ja Sëñ Tuubaa moo ko booleeg mbind ma wa min shurutihi moom alxaatim an yakuna ala taharatin saxiha kaamila bokk na ci sarti wirdu xaatim boo koy def moom nga ci nga laab laab gu mat kon laabu jëmm ji laabu yére yi laabu barab bi kon nag laabu xol ba nag moom xam naa moom wirdu yi moo la ciy jiw ibnu taymi rahimahullah ibnu xayim laaj ne ko ne ko laay mosufu ilamu taxaruna ji moom loolu sahir la baatin mu ne ko ah mu ne ko mu ne ko baatin la waaye saahir si mooy njàpp mi dana dana dugal ci sa xol bi loolo boo demee ca Shahraani nii xaw ma nan almisaan mu wax ne xudar wax na ko ne ko ndox mi dafa am ruuxaaniya ndox moo xam ne dafa mutlaq mu ab absolu boo xam ne dara tënk ko nam jóge woon ca suuf la nga ca nga ca jotee mu ne dafa am leer goo xam ne boo ko boo ko jàppee wala nga sangoo ko day day dugal ci xol bi leer loola tax moom muy sawaral jëmm ji ba nga ba nga mën a joxe loola sëñ bi ne kon wa yaq wa yuqdaa ka salaat wedd bi moom bu la bu la faatee da nga ko fay ni ñuy fayee julli wa min adabihi bokk na ca teggin ya mooy istiqbaal qibla nga jublu maanaam léegi kaaba ga ak ak almadina tahir barab bu laab ak xanaa bu insaat di kulli maa yu sawisu ak ci nga bañ a diglu leneen loo xam ne dalay fàttaloo li nga ne wax dabu nasara ilahi bañ a xool loola mu ne nag waa taqnawul al ibada boo doon nekkoon ci jumaa ji di lu mel ne tey ajjuma nga nga ne fa ca bayaan ba ci nga jël ko di ko def for julli ga fekk la ca man ngaa daal di jóg julli soo noppee sëlm rek daal di àggale fa nga yemoon waaye nag bul bul wax ne ila isaat takkal la ma soo waxee rek moom waxi àdduna da nga koy baamuwaat su bi ne waxtu ko bay na duhri wala asri tusbaar ak timis mooy waxtoom ba ca topp mooy maghrib wala wala maghrib boo bañ al maghrib yi wala insha la ca topp mooy timis ak gee mu ne nag wa ba'daha xultu man damaa jot ne damir ji ma ngay dellu ca wa min shurutihi daa mel ne ci man damir ji foofu la gën a yeey ndax mënoo koo yóbbu ca wala insha mooy salaatul insha ndax maa bayna al maghribi la wala insha daa mel ne kon wamin surutihi ji daa mel ne mu mu ci gën a kii day mel ne kon si ma lamin jóob mooy wax ndax daal daa mel ne wa baynal maxribi wa wa wala insa wa baxdaha daa mel ne daal daa mel ne daal du waxi sëñ bi daa mel ne kon wala wala insa ji ci ca la yam wa baxdaha nag si sëñ bi la mu jóg ne wa baxdaha xultu ginnaaw ba nee naa wa hadil adab ka shuruti li jubatil awraat nee na kat sart yi yëpp teggin yi yëpp daa daa mel ne sart li jubatil awraat xaasatan xaas xaasatan li wiril xaatim wiril xaatim ko moom li ma kutiba maahu waaye ku ne xam ne ne aw xaat yi moom du aw xaati yëpp kon kon kon noolee sëñ Saliou wax kon daa mel ne kon nas bii mën na koo leeral sëñ sëñ Moussa Bilam Jóob ne xaasatan li wiril xaatim li ma kutiba maa ndax lii moom dañ ko suñu doon da ko bind boole ko wér de wee fa'alamhu wa tamasak bi wa salaam kon kon loolu sëñ Saliou ne kat. maanaam it waxtu yu bari na waaye ye waaye tusbaar moomu ak timis moomu loolu kon yaakaar naa lu am solo la lu am solo loo xamante ne leer na foofu yaakaar naa waaye nag al ixtilaafu rahma moom bu gaa yi wutee ci yëf yi it day baax rek waaye nag bu ñu yàqal usul yi foofu it wérd bi am na ñuy laaj dañ koy dañ dañ koy jëfandikoo noonu jàngee ko noonu naa ma waaw ndax njëlbeen gi tarjumaan ji introduction bi ndax loolu ci la ci la bokkoon bukk ci moo moo taxoon ci fiqul wird ci al-Umda ma jagleel ko maanaam léegi ab chapitre boo xam ne da koy leeral usulul awraad straase yi alkaamil li ci nekk lépp daal yëpp moom ngay jàng bu dee bu dee alxafiif li ci nekk lépp moom ngay jàng këyit bi rek tiim ko di jàng ba mu jeex la la ca mata baamu ci nga baamu ko wérdul xaatim la nga xam ne mooy allahuma bi bi beq ci lay tataal karim ali si asaba salaatu wasalaasi na jooja ba ca amin ja rabbal alamin ja loola moom bokkul ca cosaanul werd wi loolu loolu kon day mel ne kon jëngul waxi sëñ baa waaye nag du tee dañ koy jàngaale sëñ bi dañ koo laaj loola niñ koy jànge nangam nangam mu ne kama sutira lëkkum waxu sax kama ko ci ba de niñ ko rëddee araf woo ci gis danga koy jàng sa bët na ko xool nga jàng ko wala sa bët boo xool dina nga ko jàng kon foofu ñaan gi ñu ne kon jómbul kon sëñ bi moo koy defal boppam waaye bu ko tëgg wird wi sëñ bi lam defal boppam ak wird wi lépp a yam ci nun daraja lu muy def lu nekk noo ne ko nafaxaat waxe borom nafaxaat chérif ba wala bokk mauritanien ba maanaam sëñ Tuubaa lu muy def lu nekk ci ndigal sala salama la la koy defee maanaam sëñ Tuubaa moom noonu li mu ñu jox noonu ñu ko joxee moo xam ak mbir ma noonu suñu nikku ca noonu suñ bi jox ñu leen defal rek noonu noonu ñu def loolu loolu mooy mbirum murid ab taalibe xaaj rek yaan ñëpp jëm sax ndigal li moom loolu loola ko la war a def wird bi soo koy def am na yéene dimal ahmalu bi niyat lépp looy def da nga koy yéene yéene ji sëñ bi ne na nga ci yéene an yanfaaka allahu fi dunia wal axira bilaa dararin fihima yàlla jariñ la ci adduna ak alaxira ci lu dul lor maal xubi min taala te nga jege yàlla ci ci mi rasul lii alayhi salaatu wasalaam te nga jege sallallahu taala alayhi wa sallama xurban jege goo xam ne yan fawka wala yadruk dara la jëriñ te du lor loolu lu am solo la ab sew sew la man ngaa xuus ci géej yàlla yi ba for duutoo xam yàlla for da ngay gëlëm waaw xam ne day for gëlëm man naa sax dem sax for sax ba wootee ak uluhiya ne yàlla la fi fekk ne dafa gëlëm kon léegi fii da nga am tëmkiin kon la nga am tëmkiin werd bi nag soo koy jël isnaam bi am na suñ tubaab nee na isnaam bi am na moom kum neex nga jëfandikoo baada waaye nee na képp ku jëfandikoo turu yàlla ci lu dul is na xaas mooy ñu digal la ko ku ku ci am ndigalul jëfeeg joxe jox la ko bu dul loolu nee na mu jaratu ibaada képp lay doon yi nga xam ne yàlla moom la digle ñun jaam ñëpp ñu ñu war koo def waaye nee na ku ci bëgg ay leer ak secret da nga koy tuñante ak góor ñi sëñ Saal Ndookaan nee na ma sëñ Saaliwu xaddasalaahu sirra nee na ko la laaj na ko laaj na ko sëñ Saaliwu ne ko jëfandikoo tur yàlla yi ci lu ndigal sëñ Saaliwu ne ko ka ca am ku ci amul ndigal du seen pënd ka ca am ndigal kon loolu leer na kon isna xaas isna xaas bi mooy ki la koy jox na ci am ndigalul jëfe ak joxe doona leer sànq ne la kat am naa ci ndigal ci sëñ bi xaadir isna am maa isna xaas boo xam ne maanaam léegi jëfe la am naa ko ci sumut la isn boo xam ne xaas waaye nag jëfe la sëñ Saliou laa ci amee isn xaas boo xam ne jëfe la ak joxe ko kon kon kon loolu kon ci wócc na léegi maaxuus bi boo ko dee jël te am sëriñ boo xam ne seyxu murabbi la waxuma seyxu aada de waxuma sëriñ ci xew léegi moom koo fanaanoon rek dem fa di siyaare ko ñëw ko waxuma loolu de ndax mu ma daa rafet wala oto ba wala kër ga waxuma loolu de li may wax mooy sëyxu murabbi koo xam ne dalay da dalay teete ci yoonu yàlla dangaa bëgg a dox jëm ci yàlla wut sa moroomam jaam moo jorte ne tane na la ca mu la cay teete sëriñ boobee lañ tudde seyxu murabbi wala seyxul murshid kooka boo ci nekkee ci moom boo bëggee jël werd wi dangay dem ca moom ne ko damaa soxla werd wi bu dee nag seen diggante sañ nga koo laaj ne ko sëñ bi ku la ko jox loolu la ñu tudde taqiqu silsila mooy nga ngay wéral silsila bi fan la jóge mu mu ne la maa ngi ko jële ci diw mu jële ko ci diw ba ca almuntaha te mooy sëñ bi surtout am moom dana la man de maa ngi ko jële ci ci yent bi alayhi salaatu wasalaam mu jële ko ci borom bi jibril ñëw fa de noonu la ko noonu la ko waxee am na am nañu wax nag yeneen ci jibril la jaar waaye moom kon wax wax ne ko almaxuusu minallaahi albidul xaatim almaxuusu minallaahi minallaahi bi rasuli xaatim noonu la ko daa waxee kon kon moom ci yent bi alayhi salaam lu jógee ku mel ne misaal tey sëñ Saaliwu am na suñ suñ suñ Malam Diop suñ Matal Diop tafsir mi nekk ci muy ilimaani juma njaay mi fi ñu toll nii mu nee na ma ba ko suñu Saliou di jox nee na ko de sa sa sa sa maam de moo ma ko jox sëñ bi Lamine Diop di gànnaay it ñu ne sëñ sëñ Saliou laaj laaj na ko suñu bëgg buso mu nekkaat beneen silsila ci moom xam naa daa bëgg mu gën a gàtt ba mu ko laajee nee ñu dane sax suñu Saliou dane sëñ bëgg buso daa bëgg nga nga joxal ma ko nga jaaraleel ma ko ci sëñ bi Xaadir moom mu jox ma ko loolu nag xaw ma ba xam wér na am dit moom ndax léeg-léeg léeg-léeg waxee kër yi moom léeg-léeg dañ ñuy féete fenn moo tax waaye almuhim daal sëñ sëñ Malam Diop moom jox na ko ko sama baay ba mu demee ca sëñ Malam Diop sëñ Mbacke Madina moo doon cheikhu murabbiim waxuma cheikhu aada de moo ko doon tërbiya ba ba mu nekkee ci moom nga xam ne soxna aminte loo nday ma ko Madina moo demoon ci sëñ Mannaar si Ahmadou Nour Diop baayam ne ko dama bëgg mu jox ko sama baay ngir mu ngir mu jàppale ko sëñ Mannaar sëñ Mannaar jox ko ko mu indi ko soxna aminte loo booba ca mag ca ca mage ga nee na sëñ Mbacke Madina di leen bokk fu lal bu ngeen di tëdd di leen bokk lu ngeen di lekk bu ko sëñ Mannaar digg na loolu kon googu tëdd bi moom dana neex de loola sama bàyyi ne ne fii sëñ Mbacke Madina xam naa joxu ko wedd wi sama bàyyi moom yitte ja tax mu dem ci sëñ Lamine Diop di ko ko laaj sëñ Lamine Diop ne ne ko ndax am nga ndax sëriñ moo la ko wax sëriñ nee na moom mooy sëñ Mbacke Madina nee na mu ne ko déer mu ne ko demal nga laaj ko ci ndigal mu ñu suñu ba ba ne wax ko ne ko sëñ Lamine Diop nee na ma laaj la ndigal ci mu jox ma wedd wi mu ne ko baax na demal mu jox la ko kooku kon Cheikh Oumar bii la kon doo sañ jël traitement bi mu lay defal doo sañ beneen médecin dugg ci biir traitement bi lu may moo cay joxe ndigal kon traitement la bu dee seexu nag boo xam ne aada la am na ku ma gëm sa gis dëkk rab sàngam di laaj di naan naan ku ci xam dara ma ne ko man de xam naa ci dara ñu waxtaan ma ne ko man ka sab sëriñ de tegaalim ci sab sëriñ yoxo ci ndigal mu ne ma ah sama sëriñ bi de moom xam naa moom yooyu moom yitteelu ko kon kooku kon xam kooku waaye kooku nag boobu mag la ki ki góor ga mag la xam naa kon yeewu na ba xam ne sëriñ loolu yitteelu ko kon léegi kon du du ko ko laaj waaye kooku kon du seexu murab bi seexu aar rek la kon wér di wi wi kon dana aaji kon is na xaas boo xam ne ki la koy jox kon kan dañ koy considéré ne mooy sëb sëriñ foofu it sew sew la bu am solo maanaam léegi lu dul ne sa sëyxu murab bii moo la jox ndigal noonu noonu ko noonu ko suñ mbokk ma dina joxe ndigal sama bàyyi mu dem ci sëñ Layun Jóob mu jox ko ko léegi nag waa maaxuus bi silsila bi mën nga koo jëlee ci ñu bari ci misaal seet bu gën a gàtt mag ñi ne ñu suñu tuwaay gànnaar xaadir yi ak chaachaliye yi ak yaan yi ak yaan yi daan nañ ñëw jël ci moom werd seen werd ne ko ngir mu gàtt ndax yow yonent bi rek alayhi salaatu wasalaam ñoom seen silsila dafa gudd ñoom daan seen diw seen diw seen diw ba ca Cheikh Ahmad Tijaan Sarif loola day gudd ci ñoom ñu ne ko ñu ne ko dañoo bëgg mu gën a gàtt loola loola du teeñam ay tiyaan lañ waaye nag ñi ñi ngi jëlee seen seen seen càlla la ci sëñ Tuubaa muy muy yont bi xam ne fas fa Cheikh Ahmad Tijaan Chérif jëlee ñoom fa la ñuy jëlee ñoom léegi jëleetuñu léegi ci Cheikh Ahmad Tijaan Chérif loo ci waaye nag amoon nañ silsila boo xam ne ci Cheikh Ahmad Tijaan Chérif lañ jëlee misaal ci misaal salaatul salaatul fatih salaatul fatih boo ko day wérd boo ko day wérd yow murid bi allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ja wala sax allahumma salli ala muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa boo ko dee wérde nga wérde ko yow ci silsila sëñ Tuuba moo gën a gàtt ni ko téyaan bi wérde bu du téyaan boo xam ne jëlee na ko ci sëñ Tuuba téyaan ba moom silsila lu gudd lay am sëñ diw sëñ diw alfa ma alaaji Malik alfa ma ma yoro Cheikh Omar Foutiyou Mouhamadul Qaadi Cheikh Ahmad Tijaan Sarif noonu yow nga jëlee ko yow ci sëñ Tuuba rek yonent bi yaa gën a gàttale ab silsila ndax ndax fa Cheikh Ahmad Tijaan Sarif jëlee yow foofa foofa la sëñ Tuubaa jëlee yow nga jëlee ko ji moom loolay gën a gàtt muy gën a barkeel waaye du tee nag bu la ko ab ab sëriñ Tijaan ma ma nee jox yow it nga amee ko ci silsila moom ba ci Cheikh Ahmad Tijaan loolu nuurun ala nuur la sëñ Tuubaa ne woon na fu mën a gis awraad ahsaab yi gaa yu baax yi seen awraad yi ma ngeen koo jël loolu sëñ Tuubaa doon jëfandikoo xisbul baxar ca u Cheikh Abdul Hasan Sazali ci géej gi sëñ Mame Lamine Diop moo ko nettali ci Irwa nee na sëñ bi kat nee na daa ko jëfandikoo sëñ bi sax nee na nee na sax day soo masaa di jëfandikoo awraadi Cheikh Hasan Sazali nee na xisbul ali kuréelu yàlla bu kawe ba dañ ñuy teew ay sëñ Tuubaa nag moom xam nga bu dee wedd moom loola moom lam njee mën a amee bokk tak tak noonu wala yaatal fitra faw so mi leer na ko kori gi ñu nekk moo gën a kawe fa sëñ Tuubaa kooram nga ndax moom bisam bu nekk gàcceel na démbam kon waxtu yi nga xam ne mooy waxtu werdu màkkus bu dee ki jëfandikoo xafiif bi ak kaamil bi suba lay doon ak takkusaan kii jëfandikoo nag xaatim bi moom di ko jëfandikoo tusbaar ak timis tus suba bi ak takkusaan gi moxtaar mi mooy suba ba tusbaar moxtaar tusbaar ba takkusaan darur yi mooy mooy loo xam ne boo ko deful da ngay fay takkusaan jëm timis noonu léegi géeye jëm ji fajar ja nekk ba tey darur yi bu dee nag xaatim la moom timis lay doon tusubaar lay doon ba takkusaan moxtaar la takkusaan ba timis darur yi la timis ba gee moxtaar gee ba fajar sa nekk darur yi léegi nag wérdu wi ku ku koy def war ngay naafila naafila yi nag moom danga naafila fukki rakka ak benn maanaam juróom-ñetti rakka ak safa ak witar boo mënee jàng boo mënee jàng alxuraan ngay naafile kamil bi nga naafileel ko ñaari isib nisif wala ñetti isib wala loo man lu mu gën a lu mu gën a bari gën a bari gën a baax rak ci rakka yi it ma ma bu la neexee nga yokk ko lu mu gën a bari baax na waaye nag su dee yow mu mukkaloo alxuraan ma man ngaa yem ci rakk bu ne nga nga jàng ci ñetti lixlaas suñu malam jum nee na suñ abibu imaam nettali na leen na ko ci jële ko ci sëriñam ba sëñ Mouhamadul Amin Gay jëmmooy suñ di ko laaj ne ko yow Mouhamadul Amin ñaata isim ngay jullee sa werd wi mu ne ko xanaa isim ak nisim mu ne ko ah loolu de nag moom nag jigéen ñi ko moom suñu malam jum ne ne kon jigéen ñi lu ñu ci firi lu ñu ci jublu mooy kat ñu lompañ ne ne ne ko yow yow ku mel ne yow juróomi isi isi ba baax ci yow xam nga sëñ sëñ sëñ daam moom Abdourahman loo xaddasalaaw sirra moom moom kaamil bi la daan nafi la moom suñ bi ko digaloon ñaar rakka sëñ Murtala xaddasalaaw sirra sëñ daam ko digaloon muy nafi la kaamil bi guddi ko jot am na ku jegoon gone yi nekkoon ci suñ suñ suñu mutaar nee na suñ suñu mutaar kaamil bi la daan nafila guddi moom it suñu war jaara moom di nafila téeméeri rakka mag ñaa xorom waay waaw ñaa xorom kon nag foofu nag am na sew sew ci mañ moo bi bu bu bu mag bi sëñ bi am na ci nasa bu naan sëñ bi nee na ñaari isbiris yi wala ñetti isbi ñi ngi koy defee ca maanaa léegi chafan ba chafan boobu ngay def ñaar rek ay chapon bi ci ngay jàng ñaar isbi ya am na nag ñu naan waaw ginnaaw da nga koy fay nag loolu moom chapon yooyu ki kenn du ko fay ci feq ma ne ko nag li lii nag moom tasawuf la waaw tasawuf la waaye man damaa jàpp ne noo ko naafile rek baax na naafile rek la noo ko dem ba defee baax na waaye nag soo demee ba am ngant nag sëñ bi ne ne na na nga jàng na nga jàpp ba sell jàng amana na rasulu booy demee bay tëdd da boo demee ci ca masaalik leeralaat na ko ne kat da nga am yoolub taxaw guddi gi boo tax foofu foofu foofu ko wér am na am na secret moom amana na rasulu kon maaxuus kon laab gi sartu kamaal la laab gi boo amul ndox moom bu dee da nga ca am ngànt léegi boo labutit boo jopputit man nga man nga koo man nga koo def waaye nag la ca gën moo doon nga jàpp waaye nag soo doon jàppoon ba noppi di di werd jàpp mi toj ci biir werd bi da ngay ko da ngay dem jàppi baamu ko soo dee werd soo waxee waxi adduna da nga koy baamuwaat soo séenoon ko ne gu bëgg a daanu ci lu ko mën a gaañ wala mu dal ca wala silmaxa wala ku lompañ rek mën ngaa jóg dox dox diggante mag moom ak loola waaye su dee muyoo fi xibla bi waxoo fi rek mën ngaa ñëw daal di àggale bu dee nag mooy ko xibla yooyu da ngay ñëw daal di tàmbaliwaat ok bu dee nag dangaa nekk ci ay yitte ba ba nga xam ne yow mënatoo koo mënoo koo def mu mënoo def julli gi booy tëdd rek ci ci nga jàpp ba sell daal di jàng aman na rasul waaye nag naafile gi moom ba suba ca yooyoor ba suba ca tisbaar da nga koy fay boobu la gaa yi naan ndax kon chafan gi kon mas na ko fay waaye moom mën nga koo naafile noonu rek alxuraan jëjee nag bu dee yow mënoo koo naafila moom is bi boo boo xëyee nga jàng ko waaw maanaa maanaa lu wedd wi jariñ njariñam dégg nga ci annonce wedd wi ne moom léegi tata la joo xam ne dana dox diggante nit ak sawara dana ko dana dana ko dana dana ko sàmm dana ba jëfal ko àjjana waaw léegi foofa weddu wi bokk na ci njariñam ku koy def saxoo ko da nga nekk mu'min muslim muhsin da nga am saxaatu day ni sëñ bi ko wax léegi nag weddu wi nag lu ñu xam ci wut ndigal la ci kenn kenn bu dee mëcc soob moom amut xamut fu may jaar mëcc soob moom mën naa jële weddu wi fu ko neex kooku mëcc soob la ndax moom la koy jës bu la koy xëcc moo koy xamal fan la jëm werd bi bokk na ci njariñam soo ko jëlee ci ku ko jëlee ku ko jëlee ba ci sëñ ba nga am ci ndigalul mu am ci ndigalul jëfe gi ak joxe gi yow nga am ci ndigalul jëfe rek sax su boobaa loola day firi ne yow am murit nga bis pencee bu ñu ne ana murit yi da nga mën a wuyu foofu lu am solo la daanaa wax mbokki mbakki mbakki keer ne leen kat ah ba jëbul ngeen ku jëbulul kat su bis pencee buñ buñ wootee murit yi doo wuyu ndax foofa dëgg fa am waaw fi fii moom machine la moom nga dem service yi ñu ne ñu ne ku ku ku fi service yi ndax daa am lu ñu joxe ci nga wuyu ne salafi nga teew doob salafi nga nga dem ca kuréel sàngam ñu ne la ku ku ku bokk ci kuréel bi nga ne man ngir ne daa am lu ñu fay joxe te te bokku ja waaye foofu moom amut loola kon léegi jël wird wi ci noo xam ne is na xaas la ci ki ki la ko jox am ci is na xaas ci jëfi ga joxe ga loolu moom day firi ne aju nga ci sëñ bi nga xam ne kon moom kooka mooy sa silsila mooy sa buum gi nga xam ne moo lay jokkale ak Sonatel wala mu di jokkale la ak Senelec ba nga mën a am courant ba nga am am am réseau kon kon loolu kon lu am solo la ñu xam ne it sëñ Tuubaa wird wi mi ngi ko jëkk a jox ab naar ab sëriñ fum naar wala bokk koo xam ne ma nga dëkk ab xale bii la ma nga dëkk ca Syrie boobu nag Syrie boobu ani amut nii soriel ko baa ñu wax ba noppi nag dëkkoon Madina ñoom la ko jëkk a jox foofu kon lim fi li li ma fi jubloo wax mooy kon kon day kon day kon am nañ kon ay ay dong ko kon makk makk ak Madina waaye jumbul ko ko kon noonu dara dañ koo toppatoo relation ya sëñ Basiiru xasida gi mu ci def lu motoon na mokkal sax la ko ko ko mënoon a mokkal sax danga koy mokkal mooy bismillahi abtadi natman yufid man kaana saalima al fuaadi yastafid nga xam ne di di nga lim wax maa ngi woy woo xam ne day jëriñ waaye na koo xam ne xol ba dafa laab nee na mu wax na nag nag banaan wa baax du fastami maqaala naaseexi ay waaye déglul yow kuy wax ak yow ngir laabire la li def si xii moom lay laabire de wala ka ak yow yaa raimal kamali fi saada min turuqil masaix salata ku bëgg taxe goo xam ne yaa ngi koy jógee ci sëriñ su màgg sa tariqatul cheikh al imam al jili wa chazali al xaais tafdili suma abil abasi faxrul kum kum mali man xukuma fi xadi xukum al awali maa qasaisa li kullin yaxtawi bi biha tariq qahu ixtisaasan qadru yi nga xam ne Cheikh Abdul Xaadir Jilaani Abdali Abdul Abbas te mooy Cheikh Ahmad Tijaan Sariif ñett ñoo ñëpp day soo bëggee seen njëriñ ngay nekk ci seen awraad ya faltasi man tariqatal abdil xadim suñu waa daal daa tudd suñu tubaab ca turam ba ko malaul ala xamee mu ne man xassahu bi irsiha rabbul xadim yàlla moo ko doonal wérdu yooyu yëpp mu ne kon li annahu li kulli wirdin sirru fi kalimatin fihi hadakal barru am wedd wu nekk secret ba ma ma nga ca ab baat suñ tuwaa nag moom weddam wii moo jëli lépp mu ne mu wax ba naan misaaluhu layla fi shahri siyaam wa saatul jumaati fi fi kulturaam nee na mooy laytul xadar ci ci weer wi noonu ñu koy seete mooy mooy bisu ajuma waxtu wa waaye nag suñ tuwaa moom yooyu yëpp da koo dëxëñ ci awraadam yii léegi awraad yi ñett la kon boo ci jël benn la soo yoroon ñetti piis orange wala ñetti piis tigo xanaa te xanaa tigo rek la tax kon léegi lépp kon benn la lépp kon benn la boo ci jël jël nga am na fa nag soo soo boo xam ne simi lamin Jóob wax na ko ci ba muy wax sëñ sëñ Moor jooja faal moom moom Cheikh Ibra di ko laaj ci weddu wi nga xamante ne da nga xam ne kon mag ñi ñoom fonkoon nañ ñoom wérdu wi mu ne ko waaw sëñ bi de kon sëñ sëñ doo koy sëñ bi lam jóoba koy tontu ne ko daa bëgg ma leeral ko mbirum wérdu wi almaxuus wa zaylihi wirdi xaatim ngi tudde moom zaylu mbicc ma bu daal ne ko moom day bak si la ko amee yàq sa tan maanaam gis ci sallallahu alayhi wasallam yàq sa dan mu mu jàmmarloog moom jàkkaarloog moom mu jox ko ko du du du ci ay nelaw mu ne mu day ñaari nusqa la ñaari version la xafiif kaamil yaqra'uhu musammil fi ilax mu mooy subak takusaan mu ne nag wa musaamilu zeyli ñu ko tuddee ab ab micc nee na yaq yaqra'uhu baada duhri wal maghrib wal insha nee na moom da koy jàng tusubaar timis gee mu ne inkaana isambil maxuus moo bu dee moom mi ngi jëfandikoo ñaari yeey te muy kaamil ak kaamil beeg xafe bi wa illa fa yaqra'uhu sabahan wa masaan bu dul loolu mën na koo jëfandikoo moom moom xaatim bi subaa ngoon niyaabatan anil anil kabir nga xamante ne moo koy wattil bu mag bi xataa yàquwaa way taraqa ba ba ba ruuxaan yam dëgër ba moom nga dëgër ba am kattan waaye nag yetti yëpp nag wa jamiu yutlaqu ali ismul maxkuus su ma dem Diop loolu mi dama la wax waaye nag loolu ba tey baax na waaye sëñ Saliou ak nas boobu si si ma dem Diop indi ca ca ca xaati bi damaa jàpp ne kon moom kon tusbaar ji la suñu wax. ak kii wa baax daa ji nag gaa gaa yi dañoo jot ne ne ci nas bi la waaye man damaa jàpp jàpp ne si ma dem Diop moo ko ca dolli wa baax daa xultu sëñ Saliou it en tant que murabbi boo xam ne mu mu jarrib la expert la ci lii nee na kat te wala yu nabi ko misul xabir nee na nee na moom waxtu yi day bari na kon kon kon maanaam day junj kon yii waxtu yi gaa yi wuute waaye nag tusbaar moomu ak timis moomu lii nag moom du culture bu dee ba xam ñoom bi may wax nii moo tax ma andi waxi Sëñ Lamin Jóob yi ndax ko xam ne xam-xam ngay soxla moom loolu la waaye bu dee da ngay tëbb nag da ngay dem ci ku ku ku la wér ne moo la gën a xam mu ne la jaareel fii waaye amut lambatu kon ma ko suboo kon kon ku ko soxla demal ci ku ko ku ci am ndigal jëfe gi ak joxe gi na nga am fulle nag sëñ bi ku la ko jox ndax ñu bari ci nag kat kilifa yi kat amuñ ci ndigal sax for jëfe gi ba ci am ndigal joxe ko am na ku baax koo xam ne dafa wax ne foofu lay tëjee ne ne dafa am benn naar bu déggoon aw turam turam wa daa daa bokk ci day turandoom daa bokk ci axtaab yu mag yi muy dégg aw turam nag ci am ndaje ñu bëgg ci lool ana daal ne anamu bi ñu ko annoncé ci turam baa koy seet ba gis ko dana ne tampo nee na sonn ci lool sax bëgg ci lool ne ko nag ndax am nga isni ci maaxuus dégg baat bi de xaas la jublu moom doo am moom xaas jëfe gi joxe la jublu moom mu ne ko waaw mu ne ko jox ma ko te sëñ ba ne man day sëñ Saliou ma ko joxoon maa ji jëfe gi waaye sëñ joxu ko joxe joxe ga man ay waay ay waay yàlla tere bu ca waaje nekkee ab diir te gisu ci dara wala mu yaxtaa gis dara mbaa du tuumal wird wi wala mu tuumal ku baax ki fekk ne déedéet ki ko jox maanaa léegi norme yi nga xam ne moom la laaj maanaa léegi condition yak yooye néew ca kon yow kon maa ko sa ngoog yàlla ñu yàlla defal tawfeex Cheikh Mouhamadul Muntaxa mii fi nekk yàlla na ko yàlla dolli wér ak gudd fan dolli ñu ko nun ñëpp ba liñ bëgg a liggéey suñ Bàmba te mu dëppoog li suñ Bàmba bëgg lépp suñ boom kàttal nañu bañ man ko te na nangul ñu ko moom woote na ci werd wi nga xam ne na na ko suñ si mutaa woote woon is na am ku bëgg a jël wedd wi kon demal ci koo xam ne da caa am digalul jëfe gi ak joxe gi mu jox la ko sart yan loo ca man ji defe ba keroog ngay man lépp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh أرجو لملاغة ودي كريم مستعملا بثواب لا يريم